laaj ñoom tax tey ñu boole ci les enseignants primé leen parce que bi école di tëjee dañuy ma waxtaan ak les enseignants de Randoulène que je remercie di leen féliciter à travers Asfay qui était le directeur bi nga xam ne moom moo nekkoon cours de vacances yi ak mon frère Mansour Ndiaye suma mag àndala ñoom Aline Fall ñoom ñëpp ñu jàpp ba nga xamante ni encadré nañu xale yi ci vacances yi nga xamante ni ranu leen xale yi nekk ñoon ci mbedd mi ñi woon ci daara ji ñi woon ci école Malick di jàng eh, yàlla may ñu ñu dugg ci jàmm ba école ñëw ci ay bisam ñu préparé wu pour doter leen en fourniture pour ñu dem jàngi à travers le réseau bi xamante ni tey moom la ñu possédé ko xam-xam ni Habib kan dara ñoru lu dul réseau bi mu am radar yoo xam ni moom lañ ma xàmme si y avait pas radar aujourd'hui je pense que loolu lañ taxaw sama parce que radar dañ ko sàkku ci ki nga xam ni tey nu ma mel moom lu ma am moom muy Serigne Babacar Sy umpul kenn ni man moom laa mos a lu ma am lu ma mel rek Serigne Babacar Sy euh, sëñ Babacar Sy nag li ma ko ñaanoon mooy lii te boobu ba léegi mu ngi dox kon yaakaar naa ni fi ma jàpp wóor na moo tax souvent quand mooy li ma sànq ci biir rek bi seega am na ñu ëppale abib kan te duñ def acte yi Habib Kane di def ça veut dire ëppale Sénégal ëppale ñu ngi koy xool ci oto yu rafet kër yu bëri ak euh, solin bu jekk euh, ñun duñ wax ni suñu borom suturaal nañu am nañu kër goo xam ni li muy yaatu yaatu yëpp benn néeg lañ fa am benn benn lal la ca benn cër lañ am ci lal bi euh, mm, lu gi bëri bëri lu mu rafet rafet noonu loolu nga bu dee oto suñu borom suturaal na am nañ ko bu dee yëre yu baax ñu ngi koy sol waaye yàlla dimbali ba fu ñuy dem dañu fexe ba tolloo ña ñuy fekki moo tax souvent boo leen may fekk ak short damay dem dama koy def parce que ña fekki short la sol damay il faut ma sol short pour mu mën a waxtaan ak ñoom sinon quand je viens en bazin ou bien en costume day am un parce que dañ naan grand bi costume am bi du ma ko a wax affaire yooyu or que man je suis naturel man je suis plus à l'aise quand je suis en short parce que dama ci laay xam ndax ñi ci kaw respecté nañ ñi ci suuf wala ñi ci suuf tamit mën nañoo ànd ak ñi ci kaw et eh, loolu moom may gën a motiver à Thiès ma koy def eh, donc xam nga jàng eh, man li tax mu ñor ma dañ may jànguloo woon parce que biñ may jànguloo sama papa il était dans les bonnes dispositions nekk nekkoon le maire de la ville de Thiès remplacé woon docteur Bathily jël ma yóbbu ma à Gossas ma dem jàngi fa j'ai fait pratiquement neuf ans en bourse di jàng j'avais mon petit frère qui était Euh, qui est devenu actuellement un enseignant bi muy def def na deux fois CM2 amul amul amul amul euh, entrée en sixième euh, sama tontu sama tante préparatoire woon ne nañ ko dugal menuisier au moins bu ñu ko dugalee menuisier dina am métier mais pour te dire que ni li ngay wax ni lu lu dëgg la boobu je faisais la sixième secondaire ma wàcc ma ne sama nijaay mu indi ko ma ne ko amee tonton mu ni école privée six mille la ñuy fay temps mais fayal ko une année école privée six par mois comme sa l' année prochaine mu def sa entrée en cinquième bu defee entrée en cinquième mën a dabal si waat école publique sama tonton essayé ko actuellement il est devenu un professeur essayé mon jeune frère il est devenu actuellement un professeur d' histoire kon maanaam du dafay doon loo xam ne day naturel nit ki nag li nga gëm rek ngay mën a wax ah. loo gëmul doo ko def parfois tamit bëgg éducation te amoo la bon bon sens wala la foi. da nga koy ko jéem te doo ko def nit ñi gis nga ñu bëri ñoo xam ne ñu bëgg dara mais duñ ko réussir parce que du lu nekk seen xol du lu ñu gëm li ñuy ñaan yàlla rek mooy li ñuy defal nit ñi ak di ci waxtaan mu doon lu ñu gëm moo tax man éducation aw ma ci xaar ma yàlla sama soxna damay wax parfois mu ne ma Babacar seen école quatorze heures la jël wala quinze heures ma ne ko rek dina mës dina mës parce que am foo xam ne boo fa tollee dootoo bëgg ku koy fayal chaque bu yàggee dina rus ki koy fayal wala ki koy yóbbu Et je pense que le problème, c'est motiver les enfants, ce n'est rien. Comme l'a dit la petite fille tout à l'heure, aujourd'hui, pour ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, hein, la, la, Dao il y a mon cousin qui est là, que je salue de passage, qui a eu à m'accompagner dans, ce, ce, dans, dans, ce, dans cette cérémonie. Je sais que chaque année, je suis la biñ ko commencé ba léegi fourniture yi ci magasin bi lay jógee di ñëw ma koy jox askanu kees mu ci sawar lool nag sawar ci di teg loxoom di ci jàpp ñu ànd man ak moom ak Modou jaxate mi nga xamante ne tey nekk fi di un frère à moi bëgg sama bëgg li bëgg rek la bëgg moo tax daaw bi ma koy joxee je pense que on était à quinze mille les quinze mille c'est-à-dire on l'a fait dans les trois communes dans chaque commune on avait donné cinq mille mais aujourd'hui dans la 17000 kits euh, euh, il y a 2000 de plus et je disais que ni souvent que ni man li may def ren bu déwénee dama koy yokk et je pense que ni yokku nañ ko su ma juumu sax j'ai dit mille mais Chérif m'avait dit que ni dina ko yokk ba mu nekk parce que man bu ma nekk mu fi woon dama génnoon mais après xam naa dinaa xam tout ce qui s'est le tout moins de 8 millions moins de 8 millions la ñu dépensé euh, pour mën a def loolu parce que de bu ñu sa bu doon peut-être yi nekk si ñu kanam ak li ak li ñu wees xëy na ñoo ëpp parce que màggal gi ñu weesu liñ ci def la ouverture classe ñëw ci gàmm gi ñëw ci gàmm gi nag doon priorité ci man li ma def nii ci njàngum xale yi lu ma gëm la def ko mais nag gàmm gi ñu jëm dafa nekk fi ma xàmmee fi tax li ma am ba ñëpp xàmme ma muy Tiwaawan bi nga xam ne Serigne Babacar Sy fa la man yaakaar naa ne foofu la ma xam xàmmee fa lañ ma ràññee te la may joxe li may joxe ci ouverture classe yi ak leneen ak leneen ci loxo Serigne Babacar Sy lay jóge di ñëw ci man ma ko joxe kon yaakaar naa ni ah, bu dul woon yaakaar naa ni eh, yooyu yëpp di ci nekk doon na gën a baawaan parce que wàññiwul mais yokk nañu te yaakaar naa ni dinañ gën a yokk moom de mon côté Mounir dama naan souvent comme j'ai toujours j'ai toujours dit comme Edouard wax na ko sànq euh, ku liggéey fayeeku man lenn ma ñor ci élection yi benn nit laa waxaloon muy le président Idriss Seck bi ma waxee le président Idriss Seck j'avais un défi devant ma personne muy Thierno Alassane Sall mi nga xam dama àndoon ak moom mu ni moom la ma nangul ko ni moom la parce que loolu la wax waaye ba ma ne ko nangul la ne ko yow la jox président Idriss Seck sama kàddu nekk bu dee école Malikéré moo la war a tax nekk président Sénégal demal nga tëdd nelaw te xam diñ ci jot Dame Sakho nag firi na wax ji dégg-dégg nag la laaj ndax daam dafa ne Habib ki mu àndal nee na mën na kanamam mën na ginnaawam yóbbu na ma ci kanam gaa yi gis mu ni ma ci ginaaw gaa yi gis des na ndeyjoor ak càmmeñ li ci kanam nag rawali bët dara méttewu ma ci man leen rek ma mën a métti ma dogal ak sëñ Babacar si lu am ci àdduna 2024 xam nga campagne doon maanaam jàppal ni sama ngiru dund li ma war a dund yëpp bu fekkee lii moo koy mooy doon ma dama koy campagne jàppal dama koy campagne ba keroog may dugg ci bàmmeel non xam nga xam nga xam nga bu ma nee Thiès ku sañoon ku nekk sa doomu dëkk mooy doon président Sénégal wax ji li muy bëri bëri yëpp dama ne dof weesuwul dof weesuwul jamono yi ñu toll on est à quatorze mois des élections muy ñi nekk ci pouvoir bi nekk ñi opposition ku ci nekk ci ñoom période bi may wax mi ngi xool école bi gën a baax ci àdduna bi pour yóbbu fa doomam mu jàngi mi xool ñaata la war a fay muy xool lan la ko war a jox ci fourniture lan la war a def ci poche xale bi ci argent de poche fàtte na ñi ko teg fi mu toog fi ñu toog fi mu toog ba nga xamante ne mënul loolu ci ñoom kon jàpp naa ne li may wax ci campagne su ma koy wax toujours sax man quand quand on parle de politique parfois damay sax dégénéré parce que dama naan il mérite pas d'avoir ces postes là ces gens là parce que benn nit la ñuy wut lu ko neex muy Macky Sall te Macky moomu jaruñu koy wut lu ko neex yàgg naa koo wax. Macky Sall sur les quatorze millions d' habitants benn nit la ci yàlla tànnal ko boppam jiital ko kon na ñu jàpp ni yàllaa koy sàmmal boppam jarul ñoom ñu koy sàmm nañ ñëw sàmm nit ñi te bàyyi sàmm nit ñi jàppale nit ñi te yàlla tax tabaate Macky Sall te Macky Sall bu dee alal am na ko bu dee pouvoir am na ko bu dee daraja am na ko ndax suñu borom may na ko ñoom ñi ñu ko jox nag jàpp nañu buñ ñëwee fii dañoo war a yëkkati seen i mbagg ni ñoom la buñ demee dee commencé raame ci buntu pale ba dugg ci bureau ba naan kaan yaa fi nekk ñun nag demewuñu foofu ñun fii dañuy raam jëm Tiwaawan wàññeeku indi xéewal jox waa Kees séddaale leen bu ñu pare toog yaakaar naa loolu rek amoon kàddu